aucun rapport entre rapport bi ñuy wax ak li nga xam ne moo xew ci liñ jiiñ magistrat ak enquête parlement commission d' enquête parlementaire bi ñuy tuddi biir assemblée nationale donc il faut que ñu séparer les deux comme assemblée nationale dans ses rôles am nañ droit ñuy am ay commission d' parlementaire mais assemblée nationale nekkul euh, comme tribunal boo xam ni dafa jàpp ni cour suprême la wala mu nekk ni en réalité cour d' la wala mu nekk tribunal d' instance grande instance lépp lu mu fa xam ne tey def na ko ba pare information la bu muy jébbal président de assemblée kooku moo koy jébbal président de la république moom su jàppee ni lii war nañ leen mën a topp dafay saisir le ministre de la justice mu saisir procureur donc si procureur lay mujj ba loolu tax na buñ bëggoon lu leer bëggu lu gaaw mënoon nañ jëlee saisir directement le procureur moom mi nga xam ne moo am le pouvoir de déclencher l' action publique mu def enquête saisir le juge d' ñu continuer si loolu mais li ñu leen accusé bu doonee dëgg dafay mel ni ay nit rek yoo xam ne tey dañ leen a jiiñ àdduna nag nit bu ñu la jiiñee danga xam ne kiñ jiiñ moom la ñuy saytu kiñ jiiñ moom la ñuy topp conseil concerné juróom-ñaari nit lañ c'est pas l'institution qui est ñaar ci ñoom la ñu accusé pour des faits de corruption dëgg la wala du dëgg am nañ présomption d'innocence dëgg la wala dëgg dañ ko war a enquête leeral ko xam ndax accusation yi dafa grave mais fekkee dañ dem ba ca fin ba loolu am firnde yi génn ay preuve génn ñu xam kan moo leen gàtt ak ñoom gar bi ni mu demee droit mooy appliqué wu c'est les infractions de droit commun ñoom ñaar ñoom ñoo def